Euh, yéen sunu mbokk euh, auditeurs yi ak euh, sunu mbokk auditrices yi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi déglu Rewmi FM seen émission pencum réew mi samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou jaawa Diallo mu nekk ci wàllu machine bi. mbokk yi tey ñu invité Bara Diakhaté di responsable politique APR ci diwaanu Thiès waaye tamit mu nekk chef service ressources humaines ci hôpital Cheikh Ahmadou Bamba bu tuuba Euh, Bara Diakhaté euh, maa ngi lay nuyu. merci beaucoup Djily maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur ak euh, ñi déglu rajo yëpp. Mhm. ñi déglu réew mi FM réew di leen nuyu di leen ku ci nekk fa nga nekk rek di la sant di la gërëm di ñaan ñu def émission bu neex. wax ak sénégalais yi. accord yow ngay responsable politique euh, APR ci diwaanu Thiès fan yii la ñu génn président Macky Sall ñëwoon na def ab tournée économique ci euh, Thiès ñenn ñi sax jàpp nañ ne ab tournée politique la ñuy wax tournée politique la yow ban gis-gis nga ci am. merci beaucoup Jules xam nga ñuy wax tournée politique peut-être mooy les politiciens nihilistes xam nga nit moom bu fekkee da ngay gis lu nit ki doon wàcce jamaa sax nga ne du jamaa përëm la mais ñun ñi dëkk Thiès. xam nañ ni ñëw président Macky Sall Thiès ñëw bu am solo la ñu ko ci remercier bu baax a baax di ko sant ci ñëwam cees ndax euh, renforcer na notre économie et li ci ëpp solo ku ne xam na ni cees dëkku raay la ku ne xam na ni Thiès dëkk la boo xam ni autoraay yi buñ naan Thiès ñaari gaar tax tey mu ñëw relancer l'activité des chemins de fer loolu rek tey doy na loo xamante ni ñun ñi dëkk cees xam nañ njëriñ bi mu ñu amal mais beneen bi ci gën a ëpp solo tey cees ni mu woon li ñu naan cees benn dëkk ñaari gaar tey mu bokk ko def Thiès benn dëkk ñetti gaar ndax jëlee teer bi ci ay waaw mais jëlee ndax teer bi li wóor mooy àgg na ay AIBD hmm. ndax commencé nañ ci te itam lu ni fànn kenn du ko jeex. mais autorail bi ngay wax promesse la te aussi du lu bees. waaw mais xam nga waa loolu en bis bu ne état aussi dafa am nu muy doxee. état du luñ looy ñëw njëkk jënd ci boutique daf ci sa poos état ay pro ay perspective la ay da nga naan lii laay jëm fii laa jëm lii laay def et ñun jàpp nañ ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Thiès di gis ni train bi di commencé ak ni liggéey bi di commencé gis ni àgg na sax désormais ba Tivaouane daanaka ci liggéey boo xam ni yemb na di lu bees loolu dañ ci sant di ci gërëm fii ñu toll ni train bi mën na jógee Dakar dem ba Tivaouane loolu nag ak sant la parce que suñu ñun day résorber en terme d' emploi mais dina permettre aussi dëkk ba delluwaat ci niveau am nekkoon. waaw ah, waaw mais mais Bara Diakhaté euh, li nga xam ne moo nekk euh, lu ci waa cees yàgg jàmbat. mooy otoraay boo xam ne day jóge Thiès euh, dem ba ba ma ko loolu lañ doon wax mais président Macky Sall saa soo ñëwee Thiès depuis 2012 ba léegi mënut a ñàkk wax ci otoraay mais ba léegi gis nañu réalisation boobu amoon. waaw mais loolu xam nga dëkk yi am na loo xamante ni c'est des connexions. entre les pays et boobu ñuy wax naan dina dem Bamako gis nga ni fan yii am na ay jéego yu baree bari yu ci avancé. comme yan. jéego yu baree bari avancé na ci ba ki nga xamante ni moom lañ dénk mooy yor direction général bi jëm ci chemin de fer yi wax na fan yële ni dem nañ ba négocier presque ak Bamako. li jëm li des subvention ak budget bi ko war a yóbbu jëlee dakaar yóbbu Bamako même Thiès Bamako sotti na loolu nag du loo xamante ni moom laay wax léegi ndax dafa laaj liggéey saxaar duñ ko teg ci ay pneu duñ ko teg ci ay tali saxaar dañ koy liggéey foo xam ni fa muy jaar mën na def ay ati at loolu nag buñ commandé ñoom ay saxaar liggéey tracé ni oto yi dina saxaar si dina àgg fii dina jëm Mali tel à part de tel période loolu ñun ñi nga xam ne dëkk nañ fa mbégte lañ ci mën a am mbégte lañ ci mën a am mooy mbir la moo xam dañuy jàpp ni lu mën a agsi suba la lu mën a ak ginnaaw suba la mais li ci am solo mooy yéene ji parce que nit mën nga bañ a dara ñoom waxoon nañu dara mais ñu am taxawaay. mais booy yéene xam nga suñu njëli li gëpp solo. mooy yéene. te président yéene na ni. train bi dina jóge cees dem ba Bamako. waaw non mais Baara. directeur général bi nga xam tam moo yor chemin de fer. wax na ni te ñun ci loolu la ñu mën a tënk parce que ñoom ñoo yor këyit yi nga xam ni ñoom ñoo ne ci dans les négociations ñoom ñoo ne ci li wóor parce que leneen li ki des yëpp ay discussion de ay d'arbre à sous su arbre sous l'arbre à palabre la. peut-être baara mooy toog di wax xalaatam wala kenn toog mais li ñu wóor te ñu déglu ko ci ñoom mooy chemin de fer bi dina àgg ko li commencé nag ñun dal na suñu xel ndax chemin de fer Thiès gis nañu les activités commence à bouger gis nañ ni tey bërki dem boo xoolee j'ai des images yoo xam ne terrain bi pouse nañ ko ba fi mu ne Tivaouane donc loolu sant la ce qui est sûr mooy terrain bi mën na jógee waaw mais waaw mais Thiès Tivaouane waaw mais yow mën nga jàpp ne Thiès Tivaouane du dara mais ki jógee Dakar xëyee jógee wàcc Dakar ñibbi Tivaouane dara la parce que train mi ngi def Dakar Thiès nga jógee Thiès Tivaouane xëy dakaar dara la parce que saa dafay quarante minutes cinq une heure de temps kooku nag am na mën na nekk dara bul ko jël ci distance wu Thiès Tivaouane mais da nga koy jël ci Thiès Dakar Tivaouane. waaw ah, mais Baara plus important. mais Baara xam nga affaire yéene ñun dañu yor réew. Euh, président bala muy wax benn mbir war na xam ba xam man na ko wala mënu ko war naa mën a xam fan lay jëlee financement yi dina ko am wala amu ko même ki nga wax sànq ne moo jiite wàllum chemin de fer dégg naa ko mu ne wagon yi sax am na wagon yoo xam ne ñëw na euh, ñoo ngi ñoo ngi port mais dafa nekk dige boo xam ne dige bu yàgg la boo xam ne yàgg na koo digg waa euh, beneen bi mooy Euh, sànq man damaa bokk si ñi gëm ne président Macky Sall dafay def tournée politique même bu dee économie tournée économique am na ci mais tournée politique daf ci am ndax dañoo gis ne bu demee day am ay mobilisation day am benn coloration politique boo xam ne euh, daf ci am te loolu aussi nemmeeku nañ ko fi nga xam ne moom mooy Thiès. waaw mais xam nga nag président de la république du n'importe qui et tey dëkk bu am gan teeru ko dëkk bu am gan. teeru ko. yow sa kër mais xam ngeen ne ah ah, yow waaw mais yow. sa kër bu la sa gan woowee bu am nga gan yoo xam ne bu ñu la woowee nga defar ginaar defar ndawal yokk añ yokk reer ñun Thiès noonu lañ demee ak président Macky Sall maanaam nit ki mënul ñëw ak li mu indi yéene ko ci dëkk gàddu presque mille cinq cent milliards ba ko indi investir ko ci dëkk ñuy ñëw ñu di ko teeroo na neen noonu donc lañ ko mënoon a teeroo te ñu ko teeru nag waa Thiès la ñu ko teeru ay waaw mais xam nga loolu waaw mais waaw mais waaw mais loolu wax ne yeneen kaar yoo xam ne jóge nañ xam nga xam nga le président était à Thiès pour un conseil des ministres de la région de la région la région de Thiès nag Tivaouane bokk na ci Mbour bokk na ci donc ñooñu ils font partie du des départements de la région waaw Matam ñëw man gisuma fa ku dëkk Matam nous on s'était organisé ak ñi ñu àndal ñëpp taxaw génn teeru président avec d'excellente mobilisation boo xam ni li jafe li raar li daan raar moo am cette fois-ci c'est les jeunes qui se sont engagés auprès de son excellence président Macky Sall. mais mais Sonko dégg naa ko mu ne da ngeen a génn xaalis joxe même Bougane Gueye Dany aussi nee na seen mobilisation yi pour gëmloo waa bitim réew partenaires extérieurs yu mm-hmm. Sénégal yi bëgg leen a gëmloo na leen Euh, Macky Sall di leen a bëgg a gëmloo leen ba léegi maa ngi ci xolu Sénégalais yi te mobilisation la yoo xam ne ay nit ngeen fay transporter leen ñu indi leen loolu lan nga ci tontu. waaw mais ñoo ñooñu liñ naan euh, gémmiñ guy sotti dara du jàmm cest à ñoom am nañ droit ak seen logique lañ nekk ñoom tey bu ñu ñëwoon bu ñu ñëw bu fa président Macky ñëwoon adduna yëpp teeru ko itam dañuy jàpp ni nit néew fa. parce que loolu moom ñoom ci loolu la ñuy wax parce que ils sont dans dans leur communication. ils sont ils sont dans leur communication dévastatrice. nit ñoo na mais ñaareel ba. mais fay mais fay ñaareel ba jëli jëli benn mbir am na ci politique mobilisation. gis nga nit ki boo ko fayee tey am na ab leader nga jël nit di dama ma koy fay temps indi ko ci mobilisation gis nga bu ñëwee bu yéegee ci kaar bu ñëw taxaw wàcc ñibbi na du fa toog coono coono du ko du ko ko jaral mais keroog ku gis Thiès gis entrée Thiès ba presque de dix heures à 21 heures président mënul ak gouvernance mais nga xam ne lii ay nit ñu engagé ñoo ànd ak moom. pour ay nit ñu no ay nit ñu engagé. nax non xam nga bu ñu ko doon nax xam nga xam nga tey. xaaral nax bi. non xaaral nax xam nga nax boo koy def na nax boo koy def dañuy ñëw mobiliser sur une zone mu ñëw romb nit ñi dem seen yoon mu jeex. mais cette fois-ci ça n'a pas été le cas. ñàkk a fi nax mooy yéen cees man li ma jàpp. Euh, mooy yéen gëmu leen président Macky Sall li tax mooy dafa am ñaari élection yu fi jaar élection locale ak élection législative président Macky Sall ñàkk Thiès Thiès googu nga xamante ni ñàkk na ko euh, fa la dem mbooloo mu mel noonu ton euh, dalal ko est-ce que mbooloo moomu en réalité dëgg la ak mbooloo moomu fan lañ nekkoon ci élection locale yi fan la ñu nekkoon ci élection législative yi. xam nga mbooloom lan la keroog. mbooloom dañoo juumoon ñu ngi jéggalu. ah bon waaw dañoo rëcc rëccu <laughs> mbooloom rëccu la juum. ndax peut-être élection dafa am ay enjeu am ay mbir yu bari yu làqu ci élection élection souvent à chaque fois qu'il y a élection rek bu dul présidentielle day compliqué surtout local parce que élection local dafay làqoo ak ay euh, connexion yoo xam ni ànd naa ak nit ànduma ak nit juboon naa ak nit juboon ak nit kii lañ tànn du ma ànd ak moom je damay damay damay boycotté. mais amoon na Thiès parce que yow ay yenn yoo xam ni benn ñëpp bennoo la ñu woon. ci local yi. tey la fa newoon ci ay candidat Benno bu ñu àndoon waxuma la yeew yi mais duñ sax seen duñ duñu seen couleur couleuru Benno Bokk Yaakaar mais peut-être am na ci ñoo xam ne ku ci nekk sa gox ba nga nekk diw mi ñu tànn ànduma ak moom wala diw mi ñu tànn ëpp ma mbooloo nga demal sa bopp naturellement boo xoolee ñi jël deux trois ba quatre ñëpp même mouvance présidentielle bi la Benno lañ bokk cest à loolu ay jàngat la parce que élection gox goxaan moo mel noonu mais législative yi aussi yow di législative yi am na contexte bu am sur Thiès te tey ak ay la yéwén lu mën a xew nit ñi mën nañu jàpp ni configuration am désinformation am intox am ba na dugg ci xelu nit ñi wax yoo xam ni génne fi ay mbiru góor jigéen jaxase jaxase jaxase liste yàq liste bennoo yàq ñu ñu turu ñu ñu investir ba de telle sorte que les gens ont l'impression que ah waa lii bu ñu ko defee fii lañ jëm wala mbiru góor jigéen nag d'ailleurs waxatuñ ci loolu on en parle plus cest à jaxase xelu nit ñi yàq ko ba. les gens avaient peur comme yéen rek. les gens avaient peur yi ngeen def parfois ah yéen tamit. Ah non xam nga yéen benn bokk yaakaar diabolisation vraiment yéen tamit da ngeen koy faral man man man dina jafe nga dina jafe ni ko gars yi di defee de l'autre côté dina jafe nga génnee ko benn bokk yaakaar dina jafe loolu nga nii teg samp loxo ni dañu diaboliser nangam parce que quand tu es dans le temps de l'action bokkul ki nga xam ne bu xëyee suba ba ngoon day xëy jënd les journaux toog xëy déglu la rek toog xool. sur quel angle lay tirer pour yàq li nga xam ne moom la président Macky Sall liggéey dans le domaine de la santé dans le domaine des infrastructures et ailleurs kooku nag du ngeen bokk doxin ndax kooku moom yéene mooy hmm. yow temps bi ngay am pour def action ngir satisfaire les besoins des populations kee moom du am temps boobu moom temps ba muy am mooy loo tabax mu xool nan la koy yàqee waaw mais Thiès est-ce que tey euh, am na benn euh, guerre de leadership est-ce que amul ci euh, Thiès ci rawatina Thiès commune effectivement effectivement ji loolu c'est partout tey amul dëkk booy dem te amul une guerre de leadership parce que nag li ñu naan garab yi ca kaw la ñuy fekkante nit ñi aussi c'est c'est c'est des gens c'est des leaders c'est des gens qui investissent leurs moyens c'est des gens qui le font pour soutenir les présidents c'est des gens qui ont besoin d'une visibilité pour que ki nga xam ne moom la ñuy jàppale aussi xam ne ñii ñu ngi may jàppale xam ni ñii ñu ngi terrain bi di liggéey garab gi fa mu daan nekk aussi stagné à chaque fois bon day toll période boo xam ne il faut que l'on dépasse il faut que l'on avance il faut que aussi période bi ñu toll ñu renforcer ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi renforcer les jeunes accompagner leen dans le cadre de l'emploi accompagner les femmes dans leur autonomisation ba ñu ci bëree bari Thiès ay leaders ñu ngi liggéey ci lu mel noonu mais lu mel noonu nag boo koy liggéey day laaj nga wax wane sa bopp wax sa soxla donc loolu mënul loolu dikit loolu guerre de moom amul dëkk booy dugg ci réew mi dans dans les parties du pouvoir comme de l'opposition waa mais euh, Bara Diakhaté yoo nga bokk ci APR Thiès yéen président mac Sall li mu wax waa Sédhiou keroog responsable euh, Sédhiou yi euh, yedd leen yéen waroon na leen a mën a wax loolu yéen waa Thiès ndax tey ni Sédhiou ñàkkee te Sédhiou élection législative la ñàkk mais yéen da ngeen a ñàkk élection locale ñàkk élection législative te tey euh, bëri na ay cadre yoo xam ne ñoo ngi Thiès président Macky Sall bëri na ay nomination yoo xam ne euh, ñoo ngi Thiès mais gis nañ ne yéen moom dafa mel ni sorewu leen ak euh, benn Bokk Yaakaar gi nekk tubaab puusu leen paasu leen waaw mais Ili <laughs> xam nga loolu aussi moom laa lay wax sànq ni la ah, élection locale comme législative c'est des élections yoo xam ni ay choix la. est-ce que du lay rek baax eh, est-ce que la ngeen bëgg a layee non mais non mais man xamoon ñun nous sommes ex nous sommes je nous sommes des jeunes. boo dee ndaw nekk ci gox da am ay perspectives d'avenir ndax li ma wóor mooy bëgg naa lu ma fi wax rek bu ëllëgee ma waxaat ko. wala su ma jàkkaarloo kii waxaat mais du yow rek mais ñi taafantaloo local ak législatif mais élection locale ak présidentielle dafa bëri waaw mais man li ma wóor mooy tey boo ñëwoo Thiès avant les législatives doo fa woon lim doo fa woon lim responsable yoo xam ni bari am nañ ndomba tànk yu wóor yu bari dëgg la yàlla bëgg ñaareel ba li wax Sédhiou mooy dëgg maanaam ñu ngi jox ko su néew ci ndomba tànk itam ñu am ko il faut que ñu am humilité di retourner à la base parce que wolof Ndiaye daan ko fàtte la la fal sa folle ko dalay bett. léeg aussi nit ñi ñu ngi seen i kër nit ñi ñu ngi toog di eh, góor góorlu ndaw ñi ñu ngi seen i activité ñooñu boo leen seetiwul pour xamal leen li nga xamante ne ay yéeg la mbir la yoo xam ne président def na ko fi ndaw ñi par exemple boo ñëwee jëlee ci DER boo jëlee FONGIP boo jëlee trois fpt ak mais yooyu dañ leen ko war a dañu war a dem vers ñoom expliquer leen li nga xam ne moom la fi président Macky Sall def ak li leen di permettre ñoom ñu mën ci dugg dam jëli ay activité moo xam ah, dam ñu former leen mécanisme dam ñu former leen bu ñu leen former ba pare financer leen bu ñu leen financer ñu mën a dem liggéey mënal seen bopp mënal seen mënal seen njaboot ah, mais ñooñu boo leen boo leen informé wul boo damul vers ñoom wax leen loolu dañuy jàpp ni mais état bi li mu fi def daf fi dara alors que il a mis sur place de mécanisme ay pole emploi yoo xam ne tey boo demee Thiès ku mel ni euh, ab moom mon frère Ro moo ko jiite ma nga fa mais dañuy dañuy dañ leen naan ñii dañ dañu war a il faut ñu informer d'abord les gens fekk leen fa ñu nekk parce que kii xëy amul possibilité déglu rajo wala déglu journal wala seetaan kooku boo ko fekkiwul fa mu nekk nga leeral ko li xew amaana moom du xam li xew du xam nan lay avancé wu boo jëlee jigéen ñi aussi c' la même chose l' autonomisation des femmes président lu lu ne la ci def bërki démb rek woote na benn séminaire boo xam ne ministère de la femme moo ko woote fii Dakar pour ñu xool maintenant ban impact parce que li ñu injecté ci financement d' pour les femmes mais dañuy gis ni souvent day day day day day stagné day des donc ban mécanisme la ñuy def pour di toucher les femmes au plus non nonobstant les bourses de sécurité familiale yi mu defoon ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jàppale na ko ménage pour alléger leen loolu nag dafay laaj nit ñi nga mën a dem vers ñoom dafay laaj nit ñi nga mën leen a fekk fa ñu nekk dafay laaj nit ñi nga mën a dem wax ak ñoom ci li président Macky Sall def loolu nag moom wax na ko Sédhiou la mu wax Sédhiou moo valable à Dakar à Thiès moo valable à Touba moo valable ailleurs loolu moom euh, ku ñu jox ndomba tànk rek li la war mooy boo defee sa liggéey ba mu sotti na nag wàcc ci base bi di wax ak nit ñi di leen informer parce que itam bu ñu la joxee ndomba tànk fañ la jox ndomba tànk danga nga fa war a def résultat. Ah. c'est important parce que nit ki mënuñu la jox ndomba tànk rek ngay xëy suba ngoon ne nekkee politique il faut que fañ la jox aussi nga liggéey fa liggéeyu résultat. loolu itam balaa. waaw mais Bara euh, est-ce que tamit tey ku mel ni euh, Idrissa Seck parti Rewmi di seen allié est-ce que yow sentir nga ne ñoom. amoon nañ moo xam mu Yankhoba Diattara est-ce que amoon nañ taxawaay ci élection euh, législative yi nga xam ne euh, moom la ñu génn. comme les autres responsables ni ñu daan gisee xam nga mbir yi aussi doo doo doo natt nit ki ci li nga gisul nit ki boo koy natt da nga koy natt ci li nga gis comme tous les responsables de benn Bokk Yaakaar ak Thiès élection yi ku ci nekk yaa ngi ci terrain bi def la nga war a def parce man loolu laa jàpp parce man en ce qui me concerne zone yi ma féetee suba ak ngoon guddi ak bëccëg maa ngi ci loolu di xëy di seeti nit ñi di xool nan laay fexe ba président Macky Sall mën a am ndam à Thiès maintenant li ci des ci keneen beneen responsable la keneen je n'avais même pas le temps de suivre les autres sur ce qu'ils font parce que li ma occupé woon man mooy def résultat fi ma dëkk fexe ba zone bi ma dëkk ndaw ñi ak jigéen ñi comprendre la vision du président Macky Sall ndaw ñi ak jigéen ñi xam ni le meilleur choix c'était le choix bi nga xam ne président Macky Sall daf na ko ci Thiès d'autant plus que benn candidat bi ñu ñi ñuy investiroon sama sama sama sama sama gox la dëkk sama zone la dëkk donc ñun objectif boobu la ñu amoon nekk ci moo tax c'est très difficile du ñu mën a gëstu lu bari pour de xam ñeneen ñi ñu ngi ceeg nekkuñu ci parce que on évitait le maximum les réunions on était plus sur le terrain et à la rencontre des populations. mais euh, Idrissa Seck tey nee na euh, défaite bi nga xam ne tey benn Bokk Yaakaar euh, am na ko. moom daf cee raxasu ba set si wecc ñoom waa parti Rewmi euh, benn Bokk Yaakaar daal ak APR yéen la wax ne yéen a waral défaite bi mais défaite bi moom du moom ak euh, waa Rewmi. waaw loolu njuumte ci kàddoom la njuumte ci kàddoom la parce que kilifa ba lay wax aussi war nañ ko war na gëstu gëstuwaat man gëm naa ne man je veux pas trop entrer ci ay détails mais gëm naa ne man le choix de Diatara nga xam ni tey beaucoup de gens de Rewmi dañu contre son choix ñoom ñoo contre contrebalancé d'ailleurs ah tey li Benno amoon APR la mu amoon ak Benno ñoom loolu lañ ko ne am li ñu doon xaar ñun mooy la force de réew mi nga xam ne moom moomoon dañ ñoom ñëw moomoon Thiès force boobu bu ñëwee tegu lan lay indi. Hmm. ban apport la réew mi di indi. ci balance bi ci balance bi. c'est ça qu'on attendait mais on n'était pas dans la dans dans dans la logique où dañ naan euh, ñun ña fa nekkoon parce que tey ñu nekk ci APR ak bennoo bu résultat élection amee amuñu ci problème parce que de 2004 à nos jours réew mi moo doon gagné Thiès les gens avaient cru que ni bu ñu réew mi ñëwee nag ànd ak Benno <laughs> mais naturellement les choses devaient changer mais Benno moom lañ doon am au contraire APR dafa yokk aujourd'hui boo visiter les chiffres da ngay gis ni la APR ak bennoo am dafa yokk maintenant ñoom la xew ak cuisine interne Thiès moo seen parti moom bëgguma sori ci parti jàmbur mais li wóor mooy seen parti bu ma doon mooma dinaa gëstu d' abord euh, l'interne de son parti à Thiès parce que je crois que c' est là où y a problème c' est là où ces choix font défaut parce que les trois choix uh-huh. de les trois choix yi amoon ci élection locale yi jàll ci trois maires yi quatre yi trois communes yi ak ville bi ñëpp réew mi la ñu bokkoon ah bon ñëpp tête de yëpp réew mi la ñu bokkoon affaire amu ci benn candidat bennoo amu ci benn candidat ñëpp réew mi lañ bokk. mais est-ce que loolu euh, amu leen ci woon candidat est-ce que du est-ce que euh, tax taxutoon ngeen la ngeen waroon def dëgg mouiller la maillot defu leen ko. non les gens avaient bel et bien mouillé le maillot et am na ñoo xam ils ont investi leur argent sonn ci man j'en connais pas mal ñu sonn ci élection yooyu daf nañ ci lu ne daj nañ ci lu ne mais dama ni le mal se trouve à en interne. man bu ma doon moom bala muy wax dafa woon a gëstu biir partem ba pare gëstu responsable ya ko doon jàppale ànd ak moom gës bu gëstoo ñooñu ba pare dina xam ni li perte loo élection Thiès réew mi la mais bu doon bennook rek ak APR on allait avoir une victoire énorme mais est-ce que Thiès nekkul ci loxol Yewwi Askan Wi. waa xam nga baromètre moom ci élection la. waaw te fii ñu toll li ñu jàpp ñun. Ah. mooy dañu dem local. ñetti maire yi ñeenti maire yi fa gañe nekk bañeeru yeewi ñu ñëw législative député yi fa génn yeewi gañe leen mais ñun jàpp nañu. kon man ngeen a naq na fi mu nii. Euh, tey bu doon kub la mën nañoo jàpp ne ma ngi ci loxol yeewi. li ma wóor li ma wóor li ñu xam ñun. parce que nag li tax suñu engagement politique c'est récent ci côté président Macky Sall parce dañu nekk réew moo xam ni ñu gis li mu liggéey. ñu gis li nga xam ne mi ngi koy daj pour réew mi ñun ñun on doit pas subir la dictature de la pensée unique soit c'est ici où tout est bon ku foo newul foofu laneen lépp dafa bon ñu non la la suñu réew warul doxee noonu vu toutes les réalisations qu'a fait le président Macky Sall et ñu ne nag doy na waaw ñu ne nag doy na nag ñu wàcc xam nga nag euh, sa njëriñ tabax moom sa kër sa kër gi nga dëkk tey boo bëggee jóg ne man kër gi tey damay suppi terrasse bi def ko étage di nga ko yëg. mais daa am ay priorité. di nga ko yëg tey priorité xam nga. bëgg a lekk-lekk bëgg a naan naan bëgg a faju faju baara. waaw mais aussi loolu xam nga dafa am lu koy indi tey bëgg a lekk-lekk. Hmm. day fekk nga defar chemin yu baax a baax infrastructure yu baax yoo xam ni tey boo demee mbooro ñu bay fa ñu bay fa lu bari bay fa sobleeg nangam. tali bu baax yëpp ko indi indi rapidement Dakar wala mu indi Thiès wala mu dispatch dispatching ko tey boo bëggee faju da ngay dem tali yu baax mu jël la. yóbbu la tey nga jóg dem Touba fekk fa hôpital bu bees boo xam ne moo ko tabax moo moo ko defar nga dem euh, Kaffrine fekk fa hôpital bu bees nga dem Sédhiou gi mu dem bërki dem inauguré fekk fa hôpital bu bees nga demoon Kédougou fekk fa hôpital bu bees. hôpital boo xam ne presque kenn du si dugg ndax. Ah. faju gi dafa cher. loolu yow yaa koy wax. man fi ma nekk man non yow yaa koy wax. parce que man man may dem si hôpital yi xam nga hôpital yi man xaw ma man waaw non dama lay wax. dama lay wax yow loolu yow yaa ko xam. ak Sénégal yu bari mais man non mais man fi ma nekk muy Touba luñ ñu faju cher na fee cher na boo ñëwee jamono yuñ toll doo gis fu oto doo am foo taxaw ci parking bi déjà nit ñu ngi ñëw faju c'est parce que les prix sont abordables prix bu abordable woon abordable woon ñu ngi ko ne ci sëriñ si ak nangam ailleurs. nous nous venons de non mais analyse cher na trop. analyse cher na ak combien ak yenn analyse xam nga tam mënoo ñëw ci loo xamante ni. IRM nga ñëw ni non IRM bi dañ ko war a alors que c'est des machines qui coûtent des milliards. d'accord non danañ si ñëw danañ si ñëw <laughs> ci euh, ci wàllum wàllum wér-gu-yaram gi danañ ñëw ci wàllum wér-gu-yaram gi. Euh, ndax yow yaa jiite chef de service euh, ressources humaines ci mm-hmm. hôpital bu Touba. Mm-hmm. hôpital Cheikh Ahmadou Bamba dinañ ci dinañ ci ñëw mais ñu eggale Thiès doog a ñëw ci beneen beneen sujet tey Thiès googu. Euh, même tournée économique yi sax comme ni ngeen ko tuddee yéen te man ma tuddee ko tournée politique ndax dama gis ne président Macky Sall day wër di politique. Mm. beneen bi mooy ñu bari dañuy gis ne dafay bëri foo xam ne dafay dem def fa ay promesses yoo xam ne après du ko du ko tenir fu mel ni tey par exemple tey euh, Sédhiou Gueye bëri na loo xam ne waxoon na ko Sédhiou euh, waaye gis nañ ne ba léegi matiwut diggawaat na fa yeneen quatre cent milliards yoo xam ne. Mm-hmm. ñu bari ñoo naan fan lay jëlee quatre cent milliards yooyu fu mu dem daal dina leen révéloo te au finish que dëkk ba na mu meloon ci pauvreté presque duñ ñu si génn. mais loolu yow yaa ko wax parce que yaa ngi Dakaaru mais man image yi ma seetaan Sédhiou ak ñu ma gis Sédhiou ñu waxuñu lu mel noonu man 2015 dem naa Sédhiou mais Sédhiou gi woon deux 2000 avant 2012 ak Sédhiou gi président Macky Sall dem dem démb c'est deux Sédhiou différents. am hôpital dafa changé. waaw mais pont Marsassoum foo koy dugal. la facilité waaw amee dama ni eh tey yoon Promoville tali maison de la jeunesse yi ñuy construire ay mais loolu. pose première pierre. waaw mais d' mais même pose même bu dee pose première pierre sax y' a li am solo mooy ñu teg ay acte te tey boo demee une grande mosquée à Sédhiou à kilifa yi ñoom ñoo ko waxal seen bopp. ñoo ko ne ñun ñoo ngi lay sant di la gërëm parce que jàppoon nañu ni ñun lii moom mënuñu cee mënuñu cee jot. mais boo xam ne 300 millions mën na ko waaw mais ko xeebal ña bul ko xeebal ña fa nekk. mais foo diggee woon 200 milliards. waaw bul fa lam fa def. fa def te milliards yi ñuy wax du lu ñuy tibb nii léegi ci kees daf c'est des perspectives la da nga naan dinaa daf lii tel tel année bii di ñëw dinaa def temps année bii di ñëw dinaa def temps année bii di ñëw dinaa def temps et loolu mu wax dans dans tous les dans tous tous les départements ou toutes les régions yi mu visité mais fu mu ci dem lu mu wax rek c'est ce sera inscrit dans le budget paquet je lay nekk boo xam ne chaque année dañuy xam ne lii fii la jëm ñaareel ba aussi euh, dëkk yooyu mais ay changement yu énorme ñoo fa am pour nga dawaan dem ci tali sax parce que c'est un problème pour nga dawaan non dama ne la waa Sédhiou waa dama ne la dama ne la tey la mu fa def boo demee CFA ma nga fa dag bu CFA ma nga fa non ñu wane leen jigéen ñi di bay di dund di bay ndaw ñi ne fa di liggéey. génn di jaay. non j'ai non j'ai vu ndaw ñan ngay wax mënuma la duma la limal ay tur mais j'ai vu des jeunes dans le au niveau au niveau du DAC ñuy liggéey di bay di génn di ko jaay mais ñooñu da nga leen xebal da nga leen xebal lañ fay am wala la ñuy liggéey mais am réew aussi mënuloo xëy yor quatorze régions. xëy ni da ngay ñëw région yëpp développé ndoo en même temps mënul nekk on commence au ah, fur et à ah, mesure et on pose des actes et li mu def bul xeeb ji bul xeeb xeebuma ko de mais pauvreté ba léegi ma nga fa bul xeeb bul xeeb ni yëkkati na plus de vingt milliards tabax fa ab hôpital bul xeeb ni autant de milliards daf nañ ko ci pont Marsassoum bul xeeb ni daf nañ investir autant d' argent sur les routes pour faciliter le déplacement des uns et des autres loolu bul ko xeeb ñaareel ba loolu mooy permettre tey yow li nga fi wax lépp li nga fi wax gi nii pont beeg euh, hôpital bi sax cinquante milliards sax matu ko te président moo xam ne moom nee na deux cent quatre vingt neuf milliards mais fooy teg dag bi mais même dag bi boo ko si boolee baara yi deux cent quatre vingt xam nga loolu xam nga loolu yow xam nga li ngay wax nii y a beaucoup de structures beaucoup de structures yu fa nekk di def seen liggéey beaucoup de structures yu fa nekk def seen liggéey en terme d' accompagnement en terme d' moo xam DER moo xam 3FPT moo xam FONGIP j'ai vu j'ai vu même le FONGIP mu dem financer fa pas mal de femmes mais loolu bul ko xeeb parce que ñooñu ay c'est de l' yoo xam ne paquet ji lay nekk. ay 700 millions rek. waaw mais yow ah da ngay xeeb 700 millions mais buñ la ko nañ nañ la ko indil Touba léegi nga am loo ci def buñ la ko indil Bawol léegi nga am lu am solo loo ci liggéey donc kon bul ko xeebal ñooñu fa ñu nekk parce que est important ndax li am solo mooy développer. toutes les régions en même temps school yi mën na nekk itam c'est impossible d'accord il faut toucher région par région et mhm. faire des actions qui iront dans le sens de de telle sorte que dinañ xëy région yëpp yi gisandoo ni les choses ont bougé d'accord mais mais mais yéen euh, benn at moo leen fi dese euh, ngeen doog di di waxaat ay quatre cent milliards ak di ak di dégg mais Bara est-ce que xam ngeen ne benn benn at moo leen dese ci bopp réew mi pour président Macky Sall jël ay bagages am daal di amale buy dem bitim réew leneen lu mu fa mën a jiite mu jiite ko fa buy toog ci réew mi noppalu mu toog ci réew mi noppalu wala dem bitim réew noppalu ji benn at boobu est-ce que yéen a ngi sóoraale ne benn at boobu moo leen dese te yéen seen i wax da ngeen naan ay deux mille trente cinq ak euh, deux mille euh, lu ne ngeen bokkoo wax est-ce que yéen a ngi sentir ci seen digg yi aussi même bu dee état continuité la est-ce que yéen a ngi sentir ne benn at boobu moo leen fi dese. heureusement nga terminé état état continuité la ñaareel ba yow da nga wax sa xalaat. constitution non xaaral li président Macky Sall wax laa eh, moom constitution man dama jàpp ni am ay constitutionnaliste ñu am cour boo xam ne buñ ca tollee ñoom ñooy choisir qui peut être candidat et qui ne pas li am solo mooy moom bu ko bëggee ay nit jàpp nañ ni ñu jàpp ni ñun moom mën na continuer liggéeyam moom ba léegi newul wa newul dinaa def newul newul am naa droit ci deuxième quinquennat am na ki droit. deuxième la. deuxième quinquennat am na ki droit néewul dina ko def wala du ko def loolu moom la loolu moom moom moom moo ci wax parce que moom moom moom kàddu googu mais ñun jàpp nañ ni liggéeyam liggéey bi mu tàmbali ci réew mi war nañ ko jox mu continuer war na mën a continuer le travail au delà de 2024 maintenant yooyu yëpp ça nécessite. ay waxtaan ça nécessite à son endroit ça nécessite à à à son à son à à à lui moom moom moo le mot dernier mot lui revient parce que nag ñun dañu nekk ci parti nekk ay militants très disciplinés militants yooyu boo nekkee ci parti nag parti bu tracé chemin ni lii mooy yoon bi nga xam ne moom lañ bëgg a jël ñu dem ci ñun dañ ci ànd ak parti bi liggéey ci loolu. mais Bara yow juridiquement jàpp nga ne président Macky Sall euh, yoon may na ko ma présenté wu 2024. waaw mais xam nga moom moom laa lay wax ma ne la. man dama jàpp ni dafa am constitution constitution bi ñu révisé ko mu wax ni nul ne peut faire plus de deux mandats de cinq ans. deux mandats consécutifs deux mandats de deux mandats consécutifs de cinq ans ñun ñu jàpp ni loolu li gën a basique ci droit. mooy rétro cinq ans yaa si gis. xaaral depuis li li gën a basique ci droit mooy la rétroactivité maintenant ñi ñu ëpp xam-xam ñun ci droit muy ay kilifa. ay constitutionnaliste ñi nga xam ne ay droit moo xam Ismaïla Madior Fall moo xam euh, Aïssatou Aïssatou Sall mais li am solo mooy Ismaïla Madior Fall ah. non non non non <laughs> non non non attends du n'importe qui mais mais ah. jafe ah xaaral xaaral du n'importe qui ñooñu lu jëm ci non ah, non xaaral mais ñooñu lu jëm ci du ma ni du ma mënoo ko tëkkaleeg Ismaïla Madior mais dama ni c'est de véritables hommes et femmes de droit ñooñu bu ñu xoolee gëstu ñoom dans ce que droit a dit ni lii mën na nekk mais attends li am solo mooy réew mi dafa am ay bànqaas yu mu nekke yu mu tege réew mi dafa am euh, ay juristes yoo xam ne am ay kilifa yoo xam ne conseil constitutionnel ñoom ñoo féetewoo loolu donc loolu nag buñ ca àggee moom mu wax li mu bëgg bu fekkee bëgg na ñu àgg ca bu ko ñooñu ne aywa fala budda aywa rek la ñuy def liggéey xool nan lañ ko koy joxaatee. d'accord waaw loolu moom moom jili ñun foofu loolu moo gis suñu position. d'accord mais waxi euh, Ismaïla Madior ak waxi Aïssata Tall Sall moom damaa jàpp ne wax la joo xam ne jërul dóor sa doom. ndax xamul tax mooy euh, Aïssata Tall Sall ak euh, Ismaïla Madior Fall ñoom dañu wax loo dañu waxoon génnaat si comme ni ñu koy faral di waxee wàccu lekkaat ko. Hmm. ndax ay Tall Sall fii la taxawoon. vaar yi ma ngi fi ka ne mu ne président Macky Sall amul sañ-sañ présenté waat génnaat de si ba seet si wecc euh, Ismaïla Madior Fall waxoon na lu mel noonu moom ak président Macky Sall waa léegi euh, Baara Jaxate yow kàddu yi président Macky Sall waxoon ak ismaile Madior Fall xam ne tey ñoom dañoo tey ñoo bokk ñoo toogoon teg seen i kayit yor seeni i di bind li nga xam ne mooy révision yi nga xam ne moo amoon ci euh, référendum bi ñoom ñaar ñu génn wax ne man président Macky Sall ñaari mandat lay def te mandat bii ci la bokk Seydou Gueye wax na ko Mohamed Dione wax na ko yow dégg nga ko baara président Macky Sall 2019 taxaw ne bu ngeen ma falee 2019 bu ngeen ma wóoloo ba fal ma mooy nekk sama ñaareel ak sama mujjantalu mandat baara lii dégg nga ko wala déggoo ko. waaw li ma mën a wax ji baara mooy li nga wax nii. dama ne la man. dégg ko dégg naa ko. si président mais li ma la mën a wax dama li ma mën a wax dama bëgg nga xam une chose sur Baara Jaxate Baara Jaxate xam nga mooy kan un militant discipliné. d'un parti qui s'appelle Alliance pour la République loo xamante ni sama parti décidé na ko ni lii canaba bi la ñuy jël yow yaay xool naan ma ay troisième ak quatrième cinquième man loolu du ma ko xool li may xool mooy je suis un militant tant que je suis dans ce parti là tant que je suis dans l'Alliance pour la République yoon bi Alliance pour la République jël ci yoon boobu laay dox tant nag ñu ngi ci li nga xamante ni mooy nekkal liggéeyal askan wi faj soxlay askan wi le reste yëpp ay discussion la dans dans l'air alors que la priorité la possibilité la satisfaction des populations mooy li nga xamante ni moom lañ ñu wóoloo ci loolu la ñuy nekk li ki des nag moom loolu bu ñu ci tolloo parce que réew aussi il faut que ñu am période élection am période choix am période candidature am période liggéey jamono bi ñu toll bu ñu naan un an ko fi des mais nañ nañ nañ toog mu liggéey liggéey li mu liggéey wane ko parce que on parle plus de bilan on parle pas des réalisations qu'il a fait booy ñëw fii gis nga sa fii en terme d' infrastructure. mais Bara donc li am solo mooy yii li am solo mooy mbirum candidature man du ma ci. épilogué xam nga du ma ci épilogué xamul xam nga du ma ci épilogué. waaw du ma épilogué ci mbirum élection yi du ma épilogué ci mbirum candidature parce que li ko tënk li ko tënk wax naa la ko man li ma tënk wax naa la l' alliance la république. bis bu bis bu bis bu alliance pour la république ne dama lay wax bis bu alliance pour la république ne président mën nañu ànd ak moom mu daf ko suñu candidat moom mu nangu ko ni mën naa nekk seen candidat pour continuer li ma liggéey ak li ma yéene ci réew mi man je serai de ce je serai de xam nga sànq loolu nag léegi laneen loo ci wëlbati dañuy guddal dañuy guddal waxtaan wi yàq minute yi rek non non benn bi waaw léegi benn kii rek la léegi baara xam nga sànq si sa biire wax ay dix yaakaar naa si ginnaaw da nga wax ne yow Bara Diakhaté da nga xalaat ne lu ne mën nga koo nekk ci réew mi wala Thiès ba looy wax bu ëllëgee dinga si mën a dellu loolu yaa ngi sàmm sa ngor yaa ngi sàmm sa dignité moralement aussi yaa ngi sàmm sa éducation de base te kàddu tey euh, kenn mënu ko génne fonk sa kàddu kenn mënu ko génne ci ci éducation de base ci ci ci ci Sénégal te te jàpp naa ne yow baara fonk nga sa kàddu Euh, te tey président Macky dafa am loo xam ne li ñuy wax moralement bu ñu ne moral ngeen ne bu leen fa waxee moral ñun affaire constitution réew lañ yor nangam nangam mais moralement baara est-ce que président Macky Sall tey waroon naa taxaw euh, warutoon na taxaw leeralal nit ñi ne leen man du ma poser beneen candidature ndax bu ma ko yoon mayee sax duma ko def ndax maa leen ko waxoon. te ñàkk gi président Macky Sall ñàkk wax lu leer économiquement mën naa bloquer réew mi ndax dina bëri investisseurs yoo xam ne fii ak 2024 xamuñu lan mooy xew ci réew mi. waaw non loolu yow yaa ko foog parce que ba fi may wax ak yow les investisseurs ñu ngi ñëw di investir pour ce pour notre pays ki démb gis nga ni après BRT ñu ngi créé la même chose de l'autre côté tramway yi fële vers Wakam di dem. et c' est des investisseurs qui la font tey c' est aussi ñooy àggale terre bi jëlee ko jam ñaaju pour yóbbu ko AIBD tey c' est des investisseurs qui ont investi pour construire le nouvel hôpital de Tivaouane tey c' est les investisseurs qui ont investi pour construire le nouvel hôpital de Ourossogui tey c' est les investisseurs qui ont investi pour ñu construire pour ñu construire le centre d'oncologie de Diamniadio donc euh, loolu du baromètre du baromètre parce que investisseurs yi moom ñu ngi ñëw ala ala kulli àll parce que tant président Macky Sall moo ko liggéey gérer son image de l'extérieur à partir de l'intérieur tey foo dugg ci àdduna foo gis ci àdduna démb d'ailleurs maa ngi dégg ñu naan place bi mu doon xeex pour sax Afrique occupé ko euh, au sein de l'international place boobu ak accordé nañ ko ko alors que bërki démb la joxe tablier wu président de union UA bi Union africaine donc kooku imagem am de l'intérieur de l'extérieur moom du lu ñu mën a égraté ñi ñaareel ba waaw ñaareel ba ci biir réew mi tam mais ñaareel ba ci biir réew mi il dama lay wax benn mbir te la wax naa la ko sànq ma ne la mi waral nit ñi naan kii kii ci ba léegi newul waxu ci dara li ki des yëpp ay suspicion des uns et des autres la mais dañ lay wax ne ñun li ñu wóor mooy bu fekkee moom nee na bëgg na loolu ñun dañ koy jàppale loolu nag ci bëgg-bëggam loolu nag moom la loolu dama la loolu dama la koy wax rek. waaw d'accord mais est xam nga lan moo si mën a xew boobaa ndax luñ luñ moytoon Ablaye Wade 2011 kenn du ko ko may te moom dafa bokkoon si ñiy jël mer gàddoom dem place de dem place de l'obélisque. waaw mais loolu àggaguñ ca loolu. Mhm. parce que 2011 aussi du mille 2023. loolu àggaguñ ci. d' accord léegi euh, Bara Diakhaté yow nga nekk responsable politique APR ci euh, ci Thiès léegi tey euh, ñu mel ni Alioune Tine société civile bi ñoom dañuy wax ne dialogue mënut a ñàkk dialogue mënut a ñàkk ndax moom Alioune li mu jàpp mooy président Macky Sall bu taxawee ne candidat laa mën naa bañ a yomb. beneen bi ñi nga ki nga xam ne tey mooy ku si mel ni Ousmane Sonko ñu ne ko doo dem ci élection soulèvement mën naa am waxee Aliou Alioune beneen bi mooy ñi nga xam ne man leen a ci wàllum parrainage loolu day yokk contestation yi moo tax mu jàpp ne waxtaan munta ñàkk yow ban gis-gis nga ci am. xam nga réew mi bi ko président Macky Sall yore ak léegi dialogue mosu ci ñàkk moom mën naa ni sur toutes les actions yu mu mëne pour le bon déroulement du pays ci dialogue la koy tegee ki dialogue la koy avancé ba ci yu baree bari dialogue la ko def. te loolu mën nga ko seede beneen mbir bi mooy man Alioune Tine xalaatam la wax comme ni kaneen mën a toog l'autre côté wax xalaatam parce que booy wax xalaat aussi da ngay équidistant ci say xalaat ndax booy wax say xalaat ñu lay gis nga ni yow li ngay wax te bu ñu la gisee fekk la bu midi jotee ñu taajal la bool yow Ousmane Sonko ngeen ko di añ di wax seeni xalaat loolu dama jàpp ni doo équidistant ndax na mu koy defee moom Ousmane Sonko di taaj bool di añ ak moom fu mu toll. mënoon na ko xaaral ah ah non xaaral rek non mënoon na ko ni dafee avec les autres leaders. ah kan ma la wax ah, gisuñu ko. mën naa am image yi génn. ko sentiruñ ko fa ñu bëgg ñoom ñu gis leen fa ñu wane fa seenu péete wane wane nañ parce que bu ñu bëggoon tey bu ñu seeti woon un autre responsable politique de ce pays <laughs> mais bu ñu demee bu ñu bëggee nit ñi xam ko nit ñi xam ko. comme bu ñu demee seeti président Macky Sall aussi bu ñu génnee dañ naan seeti nañ seeti nañ ko. waaw mais Ousmane Sonko mi jàpp ne da ko bëgg faagaagal. Euh, bëgg ko empêcher mu bokk ci élection yi ñenn ñi jàpp ne bu ngeen ko defee Sénégal mën naa dugg ci jafe-jafe. waaw mais xam nga loolu aussi nous nous sommes un pays de droit moom laa la wax sànq ji Ousmane Sonko citoyen sénégalais la comme man comme yow comme keneen. citoyen ñaari citoyen yi tey bu ñu too amee problème man ak yow tooñante li am solo mooy su ma su ma la yóbboo wala nga yóbbu ma ci yoon li am solo mooy yoon daf liggéeyam. mais nul ne nul ne peut être au-dessus de la loi kenn mënul nekk au-dessus man lu ma def baax na man lu ma def kenn du ma ci topp mais lu keneen daf man nañ ko jàpp bu waa ji tooñee mën nañ ko dóor c'est pas possible moo am daf ay mbiri cuuneem ba dugg ci guuta kamu joteel ni ko porter ko plainte mais loolu buñ ci demee ci yoon yoon dafa war def liggéeyam ba lépp loo xam ne yoon da ko war a teg pour moom parce que il y va de l'intérêt et de la crédibilité du pays parce que buñ ko rëccee ci moom mais c'est fini pour tout le monde c'est-à-dire anarchie moo fi am ndax bu ëllëgee ku ñu bëgg ku tooñati itam ku ne danaan mën naa tooñ wala mën naa def li ma neex après dara du ci mujj loolu nag bu ñu fa tollee baaxul ci réew moom citoyen la comme tout le monde comme ni ñeneen ñi nekkee citoyen tey amaana bu jamonoy couvre-feu jamono yi euh, yu yu ñaan yu ñaan couvre-feu la kenn du génn jamonoy pandémie bu ko génnul woon këram tey coow yu bari amaana du du ci am bu génnoon këram ànd ak chauffeur am ànd ak garde corps am amaana ba léegi coow yu bari du ci am bërki démb bu waxee ci rapport ci mambay ñaani am naa lii mi ngi nii ma téye mi ngi sama portable mais attends kilifa warul wax ci dans la légerté ji li ñëw kilifa nga kilifa heure booy wax li ngay wax war nga ko téye ci sa loxo surtout s'il s'agit d'attaquer une personne parce que nag ñun da nga dëkk ci dëkk bi dëkk ci réew mi yor fi njaboot yor fi say doom yor fi say mbokk bu ñu xëyee waxal la kers gi nga njëkk am boo demee say mbokk mooy ah li ñu wax dëgg la am du dëgg fooy yow la yow la àgg du mën a du mën àggu fa léegi nag lii koy dindi mooy wax nga ni lii am na def nañ ma tuumaan nañ ma wala tuumaan nañ ma ci lii dem naa ci yoon fi mu baax na doone benn ngir mu atte li nga am ci ay preuve ba tuumaan ma devant toutes les presses du monde nga ñëwaat taxaw ni mu ngi nii lii moo tax ma tuumaan. mais est doo que du ngeen koy bundu xataar ah, koy bund xataal bu waxul woon loolu dina ci am bu attaqué wu loolu une loolu du ci am sa dëgg la yàlla bëgg parce que yow wóor na ne en âme et conscience amoo sañ-sañu xëy rek fekk sa collègue bi toog fii mais nga wax ci moom walla nga bind ci moom lu la neex boo ko defee xam nga ni diffamation moo la ciy fekk. xam nga ni kooku bu saisiré justice mais ci sa kaw la jëm. waaw mais mais mais mais Babacar euh, euh, Baara. Ah. li nga wax nii même ci kaaw euh, Adji Sarr bi. dégg nañ si ay audio yu Mamour Diallo certificat médical bi enquête interne bu gendarmerie li ci xew lépp ak gisuñu Adji Sarr joxe benn benn preuve beneen bi Mame Mbaye Niang li muy wax nii du Ousmane sonk rek moo ko fi wax te te Mame Mbaye Niang moom nangu na ne rapport am na Amadou Ba aussi nangu na rapport am na Birahim Seck bind na ci livre mais acharnement moo am ci kaw Ousmane Sonko. waaw mais waaw mais xam nga peut-être ci moom la tombé xam nga nit man man nit mën na jóg di ma ataay ki njëkk a wax peut-être mën na wax du ma ko duma ko jàppal duma ko du ko xoromal parce que damay jàpp ni euh, rumeur la kuy wax kaneen wax kaneen wax peut-être ki ñetteel kiy wax ma ne ah jot na ma seetal sama bopp nag ki ku ñetteel ki la tombeel pour man nii la demee ak Mame Mbaye ñaa ah. ñeneen mën nañu génn wax sur des choses mu jàpp ni yi ñuy wax c'est infondé parce que mënuloo nekk autorité dans un pays le temps de l'action bokkul ak la temps des paroles parce que boo bëggee wër di tontu ci plateau yi di tontu ci rajo alors que ñu dénk la responsabilité mais amaana doo ko liggéey. waaw mais est-ce que tey euh, Ousmane Sonko du caagi ne dafa nekk seen adversaire tey boo xam ne yéen njortu ngeen ne bu demee ak yéen élection présidentielle mën na leen a gagner. loolu àggaguñ ci mais li ma wóor mooy. tey y a pas mal d'autres candidats qui sont dans ce pays et qui font le tour du pays sans tambour ni trompette kenn sonalu leen ñu ngi ci li nekk di wër tey boo gënee kaal le pays il est partout et kenn doo dégg mukk ñu ni la état mi ngi koy wala nangam. mais fu Ousmane Sonko dem waaw non xaaral waaw mais waaw mais waaw xam nga aussi moom laa lay wax léegi yéen xam nga dégg dama moo tax. non non yéen amu leen problème ak ko xale yi toppul ki ngeen am problème mooy ki xale yi topp. non mais non mais bokkul réew mi. mënoo xëy nit ñi war a xëy ni dañuy dox nit ñi war a xëy dañuy nekk seen activité nga bloqué activité yi ba noppi nii waaw bon nit ñi loolu mu loolu loolu loolu bu ko nit ñi si bu ko état seetaanee <laughs> mais mais ça ça devient dangereux pour notre pays. mais constitution moo may ah, fu mu ba fii ñu toll nii mi ngi dem fu ko neex amul fenn fu ñu ko téye mi ngi woon Guédiawaye mi ngi woon Kaolack mu ngi ailleurs kenn déewu ko fenn mi ngi dox ay soxlaam comme bon lui semble mais quand même anarchie moom. laa jàpp ni nguur waru ko seetaan am réew pour moom muy kaneen muy kaneen ak kaneen mais pour terminer ci tële mhm. ci moo loolu moom li ci am solo mooy du aji du ñun xaar li ñuy xaar mooy justice daf liggéeyam ba mu mat ci dossier yooyu muy ci contre Adji Sarr muy ci contre Mame Mbaye Niang muy ci ailleurs. d' accord euh, Bara Diakhaté yow yaa nekk chef du service des ressources humaines euh, centre hospitalier national euh, Cheikh Ahmadou Bamba maanaam hôpital tubaab bi. yow yaa yor lu jëm ci wàllum euh, ressources humaines euh, hôpitalu Touba bi euh, sànq ne nga wala ba la hôpitalu Touba bi est-ce que jàpp nga ne président Macky Sall def na ay réalisation ci ci wàllum santé ndax ñu bari dañu jàpp ne suñu plateau médical bi ba léegi dafa am ay jafe-jafe sànq yaa ngi wax Sédhiou mais Sédhiou bi fa président dem dégg naa ñoo xam ne ñoo ngi doon wax ne Sédhiou dafa manqué ay euh, ay médecins yoo xam ne yu qualifié lañ maanaam euh, matul beneen bi démb-démb euh, rek sitin am na ci fi nga xam ne tey mooy hôpital régional bu bu Kolda hôpital régional bu Ziguinchor aussi la fi professeur Seydi waxoon ne hôpital bi moo gën a feebar ñu fi ñëw loolu kenn nattable wu ko beneen bi même Kaffrine gée ngeen di wax ne def ngeen fa ab hôpital mais accident am na Kaffrine ay blessé yoo xam ne dañ leen a jëlee Kaffrine indi leen fi nga xam ne mooy mooy Dakar Euh, Touba gi nga xamante ni aussi yow yaa nga fa ne ñu bari dañuy wax ne faju ci hôpital bi euh, dafa nekk loo xam ne lu cher la ban résumé ngay def ci plateau médical ak réalisation yi ci président def. Euh, Diouri merci beaucoup parce que loolu je suis très à l'aise je le ministre de la santé docteur Abdoulaye Diouf Sarr qui a fait un travail remarquable dans ce domaine parce que tey suivre na vision président Macky Sall ci nan la. ñu nan la ñu mën a fexe ba pàcc nekk partout dans le pays dans les coins et les coins tey accident cyclo bi ñuy wax bu hôpital de niveau deux bu Kaffrine nekk am nekkul woon foofu Thierno Birahim Ndao kon tey lan la ñuy wax xam nga dañ naan évacuation benn malaat wala ñaar la ñuy évacuer wala ñett mais doo dégg ñu la évacuer dañu un homme alors que l' accident était extrêmement meurtrier mais gis nga ni hôpital bi résorbé na ba les gens se sont même dit ça a été une vision énorme du président de faire de telle sorte que dans des pôles et dans des quatre coins du pays foo ci dem fekk fa un hôpital de cette de cette dernière génération Sédhiou c'est des hôpitaux de cent cinquante lits tey ku dëkk Sédhiou soxlaatul pour def scanner dem Ziguinchor wala nga dem ailleurs parce que tu le fais à tu le fais à Sédhiou maintenant parce que centre de santé daanaka la fa nekk hôpital niveau un mu ñëw indi ko à ce centre là mais loolu dafay am nag. tey boo ñëwee ay hôpital dafa am ay intrant dafa am ay dafa am ay boo ñëwee labo wala nga ñëw euh, rajo wala nga ñëw souvent fi ñu la naan dafa cher yëpp parce que c'est des intrants qui font que li ñu lay defal malade bi lu ñuy jënd la dañ koy jënd indi ko foofu lay digressé euh, ñëw hôpital Cheikh Amadou Khadim bu Touba et la je je je je félicite un manager je salue et félicite un manager docteur sourant parce que moom la ñu fa nommé comme directeur kii quatre hôpitaux yi président defar ñetti Sédhiou Kédougou ak Kaffrine hôpital de niveau deux la avec cent cinquante lits Touba mu daf ko hôpital de niveau trois avec trois cent lits tey loolu defal na ko population yi Touba mais defal na ko Serigne Touba aussi tey dans cet la là bientôt dinañu commencer la radiothérapie ndax ñi nga xam ne ñoo war a ñëw commencé radiothérapie. te radiothérapie bu ba léegi amul radiothérapie. amul centre de dialyse. xam nga xam nga radiothérapie. radiothérapie souvent aussi moom laa lay wax les dañuy bëgg di wax sur l'arbre à palabre mais du ñu ñëw gëstu xam parce que radiothérapie boo ñëwee Sénégal ba ci sous région bi laa lay wax sous région Gambie Guinée ay ailleurs bu ñu def radiothérapie fii la koy def si parce que radiothérapie c'est extrêmement sensible. te radiothérapie Sénégal fi ñu toll fii ñu toll dalal jàmm moo fi am radiothérapie Sénégal. mais warut a nekk benn rek. waaw mais xam nga la moo tax lu lu loo xamante ni tey boo demee dans les pays Gambie les Guinée euh, souvent ñun la Mali benn wala ñu la Mauritanie benn pays yi ma lay wax nii am amuñu rajo amuñu radiothérapie boo jëlee Gambie boo jëlee les Guinée amuñu radiothérapie. mais firnde waaw dama lay wax xaaral ma wax la xaaral la xaaral ma wax la parce que loolu aussi foofu ay réew la. donc si le président en Sall a l'ingéniosité de comprendre que machine bi développé na à l'international war na mën war nañ ko mën a sentir dans mon pays wàññi boo gis ci benn lay commencé ndax les quatre hôpitaux moo indi hôpital Ourossogui moo indi hôpital Tivaouane moo indi hôpital Diamniadio et mooy continuer ailleurs et ailleurs mooy indi hôpital bu Saint-Louis aussi léegi léegi nag centre de dialyse bu Touba bi euh, nit ñi fi ma doon fi ma doon kawe mooy je salue l'ingéniosité et la clairvoyance du directeur docteur Souran parce que tey ah, jox nañ ko xaaral jox nañ ko hôpital boo xam ni la fa nekk ci ay services plus de sur les vingt trois services qui devaient ouvrir nga xam ni progressivement la waroon dem tey les vingt et un services sont ouverts tey hôpital Touba boo fa duggee les vingt et un services sont ouverts par rapport non li may wax nii et c'est le RH qui parle les vingt et un services sont ouverts constatation externe tey service dafa ubbiwul mooy service grand brûlé ak service dialyse ñoo fa ubbeegul te loolu bi mu ñëwee xool ni ñu defee branchement yi ak xool dialyse li muy laaj ci ndox parce que ni ñu liggéeyee hôpital bi dafa am fu ñuy tuur ndox ci biti mais loolu li muy utiliser ci ndox mu ni bu ñu ko ubbee dès maintenant ndox mi ñuy fajee nit maladie boo deful ndànk ci askan wi la jëmaat donc mu ni nañu commencé xool nan la ñuy def wut gas benn tuyau bu kii kàmb gu rëy ci biir hôpital bi dere parce que y a de l'espace nga xam ni tuyau yi dañ ko mën a jëlee branché ko foofu directement nga xam ne ndox mi du doon ndox moo xam ni buñ ko utiliser pour dialyse du yàqal askan wi mais du doon loo xam ne aussi day yàq ci gàncax bi ñaareel ba mënoon nañu ñëw comme dans les autres hôpitaux yu bees yi ubbi ngay ñëw ñuy commencer programme bu ki dem pose protège nga xam ni dakaar rek lañ ko daan defee Dakar dongal kaan defee boo ko defeewul Dakar benn yoon lañ ko mos a defee Thiès mi ngi Touba aujourd'hui bëgg dem laa laaj l'orthopédiste docteur John que je félicite de passage man ko mais docteur mais sa liste mun ma non actuellement on a encore une demande d'attente pour que ñu xool parce que ay pose protège genou na gens ne le faisaient qu'à jënd matériel bi ailleurs indi boo ñëwee ñu tegal la ko Dakar mais maintenant cela se fait à Touba. mais est-ce que Touba askan bi ñoo ngi ñëw ci hôpital bi faju moom laa lay wax dama ne la boo bëggee je dama lay invité nga ñëw xool. parce que l' objectif du directeur au départ. Touba laa dëkk de. waaw mais waaw mais moom laa lay nga dëkk bi sax. Touba man falaa man falaa xëy suba gu ne sept heures et demi huit heures sama bureau la may fekk vingt deux heures vingt trois heures laa fay génn su ma teelee wàcc hôpital vingt une laa wàcc te euh, bis bu ne dinaa def le tour des service bis bu ne parce que directeur li mu ñuy wax mooy hôpital zone la boo xam ni. tout souvent li indi problème ci détail lay nekk donc il faut toujours être dans euh, à l'intérieur di visiter di xool loolu moo lay permettre à chaque fois ngay xam quelles sont les difficultés d'ailleurs des agents quelles son les difficultés yu patients di am est-ce que tey Touba feebar bu fa nit am euh, mën naa fajoo Touba fii may wax ak yow feebar bu nit am Touba jarul mënul mën jarul ngay génn mën ngay am foofu parce que itam bu ñu nee jalise du rek Touba du rek Seexul Xadim restaurant bi muy nekk Ndaamaatu amoon na jalise centre boobu mi ngi dox Matlabul Fawzayni am na jalis am na centre de jalis donc c' est pas c' est pas une question que. Ah Cheikhul Khadim ñoo xam ne ñoo ne dañoo bëgg centre. Euh, ñu ñoom ñoom du ñoom du seen bëgg-bëgg mooy exiger ñun suñu doxalin. ñoom ñoo malaat ñoo feebar. waaw mais dama lay expliquer dama lay wax seen bëgg-bëgg nit ki day am bëgg-bëggam ni man lii laa bëgg mais fa nga nekk aussi ñu def ko ay milliards. yow bu compte des rendre amee directeur la ñu bu bu ñu rendre compte directeur la ñu lii yow moom lañ ciy laaj mais loolu itam moom uh-huh. ñoom dañoo wax ba ñuy wax fekk na moom mu jël ay disposition bu yàgg parce que xam na ci lam jëm léegi baara waxtu bi jot léegi liggéeykat yi nekk hôpital Cheikh Ahmadou mm-hmm. ndax seen condition de yi ngeen di liggéeyee ndax amu leen fi benn jafe-jafe yaakaaruma ko yaakaaruma ko en ce qui nous concerne am ngeen syndicat foofu que yaakaaruma ko en ce li tax mooy déggoo man la hôpital bu defagul li ñuy wax ma li may wax ak yow nii yëpp hôpital bi defagul dix mois l'ouverture de l'hôpital defagul dix mois maanaam fi ñu toll nii en un temps record avec tout ces réalisation dont je dont ma lay wax dont je je te parlais tout à l'heure muy tey boo ñëwee cardio les pacemakers leneen nag yeneen yoo xamante ni dans le domaine de bërki démb dama dem seeti gynéco bi ma ne ko mais fay mu ne ma fii mën nga fi accoucher di snap mën na ko jigéen moom nu muy accoucher tal si sinap mu ne ma loolu boo ñëwee mu expliquer la ko c'est-à-dire niveau bi ak xarañteef gi hôpital bi toll. parce que le district mais est-ce que am na personnel tey dans chaque domaine dans chaque domaine dans chaque domaine dans chaque spécialité ñi ci gën a xarañ ci réew mi boo limee ña ñaar doo lim ñetteel ba te bokkuñu ci ñoom ñoo yor dans chaque service ñoo ko dirige ñoo nekk ci bopp bi. muy urgentiste ba docteur Seck muy docteur Diop gynéco ba muy docteur Dieng réanimation muy docteur Niass ortho muy chirurgien docteur John orthopédie docteur Niang rajo Mame Doumbé Mbacké labo mën naa la limal docteur Ama Gaye nga xam ni tey ku ne xam na ko ci fibro moo fa nekk yoon médecine interne donc dermato c'est rare boo demee ma nga fay ak docteur ñaare docteur ba endocrino diabéto c'est-à-dire tey endocrino-diabéto dermato bi li ma lay limal ni médecin y a y a le médecin du travail y a tous les cadres qui font que l'hôpital de Touba aujourd'hui est mis dans de très bons rails pour que mu développer dans ci kanam tuuti bu ñu naan àgg na un an déjà commencé na parce que ñi fay ñu bari ñu ngi jóge léegi ñi fay ëpp sax lu ñuy fajoo Louga Daara Saint-Louis ñëw dakaar ñu ngi fa la ñuy faju see ci kanam tuuti sous région bi ñëpp Cheikhul Khadim la ñuy faju see loolu nag président moo ko jagleel Serigne Touba moo ko jagleel Touba ndax borom Touba aussi mission la boo xam ne dëkkam moom nu ne la fa nit ñi di ñëwee mais li ñu yéene te directeur l'hôpital yéene ko mooy fexe ba dëkk borom Touba ku fa dugg si boo ñëwee ca te paj indi la nga dugg Cheikhul Khadim booy génn yëg tan sant suñu borom. d'accord jërëjëf Bara Diakhaté ñu lay sant di la gërëm. waaw euh, suñu jëli maa ngi lay remercier bu baax di wax euh, di remercier équipe bi nga xam ne ñoom laay liggéeyandool aussi parce que je suis dans un très grand mouvement di liggéey ak ñoo xam ne ñu ngi sillonné tout Thiès di remercier surtout waa quartier Cité Lamy parce que quartier boobu laa dëkk école Modou kan donc ñooñu tey ñu sagal ma jàppale ma taxawuma parce que nit bu ñimee naan ku ñimee dañ laa dee te itam ku kuy séenlu ci kaw ñi la tingoom ñoo am doole et moom ba mën naa ni tey Thiès ku ne di ma gis d'ailleurs ci loolu laay ngir sant leen remercier leen ci laay organiser incha allah ak ñi ma àndal une grande journée de consultation médical gratuite le 11 mars consultation boo xam ne spécialité yu bëree bëri dinañu fa ñëw xool nañ lañuy ñuy fajee nit ñi buñ leen fajee ba pare may leen ay garab am na ci ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw pour ñu jongal seen njaboot bu ñu ñëwee jour boobu yoraat assez duro pour mën a jël xool nan la ñuy jongalee xale yi accompagner leen mais lu jëm ci cancer aussi gynécologie pédiatrie euh, ophtalmologie ORL cardio ñëpp dinañ ñëw et c'est des spécialistes de pointe yoo xam ne dinañ ñëw ànd ak ànd ko ak ñun maa ngi leen di gërëm di la remercier yow bu baax ci occasion bi ñu may ngir ñu wax ak sénégalais yi mais wax ak réew mi wax ak waa Thiès jërëjëf euh, Bara mbokk yi mu nekk responsable politique APR si Thiès nekk chef du service des ressources humaines euh, hôpital bu Touba di hôpital Cheikh Ahmadou Bamba moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi muy am wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm machine bi jërë ngeen